dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyantooy élection député yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la élection la yoo xam ne mënut a yomb ci Macky Sall bi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibara nan ñu yi li tax du yomb mooy coalition bii nga xam ne coalition la boo xam ne bu jàmmarloo ak benn bokk yaakaar mën na ko indil ay jafe-jafe mën na koo indil Moussa Bocoumba muy coalition wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi ñaari coalition yi gi nga xam ne joxante nañ ko loxo ci département yi loolee nga xam ne ñooy waa wàllu Sénégal ñëw nañ na maître Abdoulaye Wade jamono ji moom la ñuy wax ne moo jiite liste wàllu Sénégal ci liste nationale bi ndax yeewi am na liste nationale wàllu Sénégal am na liste nationale bi du l'Observateur nee na ñaari coalition yi nekkul ay coalition yoo xam ne bi ñu koy taxawal yomb na maanaam dañoo sacrifier seen bopp ngir nag mën a taxawal coalition bi yéen a kaay gi xëy xibaar moom réew mi ko di cee nee na PDS jamono ji bu ñëwee ci yeewi askan wi loole nag li muy firnde la mooy PDS nag ma ngi ci opposition radicale bi ñoom Ousmane Sonko maanaam opposition bi nga xam ne du ñu may dara Macky Sall jamono ji PDS nag fekk si na leen si ndax PDS nag bu njëkk daal da doon nooyal waaye nag ñëw na fekk si ñi nga xam ne dañoo radical ba maara détail yi journal bi xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas li am ba de Sall mooy xeex bi ci élection législative yi ñu dëgmale diggante benn bokk yaakaar ak ak yeewi askan wi du nekk na xeex xam ne bu yomb lay doon yéen kaay gii di Les Échos nee na nag Abdoulaye Wade mi nga xam ne am na quatre-vingt-quinze ans ñu ne Abdoulaye Wade mooy nekk tête de liste wàllu Sénégal ci seen liste nationale bi loolu nag mbaa jaaxalu leen a kaay gii Libération nee na élection député yi xeex bi dina bëri lool ci Sénégal waaye nag dina rawati fii ci diiwaanu ndakaaroo ndax nag nee nañu ci ay xibaar liste benn bokk yaakaar bi ci Dakar Aliou Ndoye maire bu Dakar Plateau moo koy jiite liste Yewwi Askan Wi ci Dakaru Barthélémy Dias moo koy jiite ñaar ñii nga xam ne nekkoon nañ parti socialiste ñoo fas yéene jàmmarloo ci diiwaanu Ndakaaro ndax nag la nga xam ne moo tax Macky Sall bëgg a tabb Aliou Ndoye nee nañu Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba ñaar ñii mënuñoo jaaroo ab tala dañuy géete ngaas ba léegi ndax kër bi nga xam ne Amadou Ba mu ngi jël parrainage yi di ko jox Aminata Touré Abdoulaye Diouf Sarr tànkam taxawu fa yéene kaay gi da la mandat ñoom nee nañu li ñu dégg ci xibaar mooy Amadou Ba mooy jiitali si bokk yaakaar ci diiwaanu Ndakaaru journal bi du Source A nee na en gisee coalition Wallu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi ñu joxante loxo ci département yi ki nga xam ne mooy Karim Wade mbir mi yëpp moo ko négocié fa mu toog ca Doha fa la ko Karim Wade négocié ak Ousmane mbir mi nag dimanche ci ngoon la ko daal di signé yéene kaay gi nan la maître Abdoulaye Ousmane Sonko ba ñu déggoo ci kawi kàddu loole la journal bi ñëw di ko leeral yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na en tout cas li am ba desal te ñu mën koo wax mooy coalition wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi maanaam nag mën nañoo dóor Macky Sall nag ab coup maanaam mu kaaw maanaam muy tertere ndax nag coalition la boo xamante ni bu demee ci élection yi mën naa indil jafe-jafe Macky Sall journal bi di Walf Fadjri xëy di ko la di ko dëggal bu baax a baax yéenekaay gi di L'As nee na nag mbir mi nag bu ñu waxantee dëgg maanaam APR ci boppam mooy xeex APR ndax nag ci ñoom gis nañu bare bari dañuy def ay combine di galgalante nekk ay noon ci seen biira te nag élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn nag daan na koy firndeel ca diwaanu Parcelles Assainies ndax ca Parcelles woon nañu nag ay jege ñaale Amadou Ba ak jege ñaale Mbaye Ndiaye ñoom nag voté lu ñu woon ki nga xam ne mooy Moussa loole loolee tamit gisoon nañ ko ca diwaanu Géejawaay ndax ndetteelu gi Aliou Sall ndetteeloo ci ville bu Géejawaay nee nañu am na nag waa APR ak nag ñenn ci allié ñoo xam ne ñoom dugal nañ ci nag seen loxo yéen a kaay nee na nag wàllu Sénégal jamono ji crise am na fa ndax Mayoro Faye jamono ji mer na ba maara détaale Mayoro Faye bàyyi na PDS li ko waral mooy ma Faye liste nationale bi maanaam dix-neuvième la loolee nag moo tax ma Faye mer ba maara détaale nee na nag dañu ko trahir te nag lépp Karim Wade la yéen a kaay gi yéen a kaay gi de Les Échos yokk si nag Cheikh Bara Dolly Mbacké mi nga xam ne mooy président groupe parlementaire libéraux yi te dëkk ca Touba mer na moom ci ba maara détaale nee na génn na PDS moom tim li nga xam ne nag mooy investiture yi moo ko waral yéen a kaay gi de L'Observateur ci yenn coalition yi ndax nag lu toll ci fukk ak juróom ci ay dossiers yi nga xam ne déclaré nañ ko ci direction générale des élections am na ñeenti dossiers ñoo xam ne jamono ji nag dañu leen a rëkkale gëm su bopp bu buggaan ngay dani soo muy tuulee doo dem si élections yi dañu koo rëkkale waaye nag Adama Faye mi nga xam ne moo jiite coalition defar sa gox moom tim nag ay listam ci wàllum parrainage bi moo buggaan ñoo ak Serigne Mboup mi nga xam ne mooy maire bu Kaolack jiite coalition ànd nawle moom tim nag ay parrainage am dañu koo daal di rëkkale waaye tamit ki nga xam ne mooy Fadel Baro la turbine xëy duñu xibaar naan ñu bëri na ay maire yoo xam ne ci opposition bi dañoo ne fekk Macky Sall ñi nga xam ne ñooy électeur yi leen fal ñu génn jamono ji dañoo maire ba maara détaal yi di xaar élection législative yi yéen kaay gi di réew mi quotidien ak l'observateur ak Vox Populi ak L'As ñu fekk fa Omar Gueye mi nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllum collectivité locale daat nay wax ne Guy Marius Sagna ak ki nga xam ne mooy capitaine ñoo ñooñu kenn du leen fay bu weer dee ci mairie bu Ndakaaru ndax amul benn inspecteur du travail yi bu leen ñemee signé li nga xam ne mooy ab contrat maanaam ñu fay leen moom waxaaliwu ma ko ndax nag administration collectivité territoriale dafa am noo xam ne moom lañ ko tëggee yéen a kaay gi di mi ko di cee xëy duñu xibaar naa ñu ni ki démb nag njombe am na ci teer bi dem bi dikk bi dafa gàllankooro li ko waral nag mooy dafa am benn câble signalisation boo xam ne toll na ci 60 mètres boo xam ne dañu koo sàcc dañu koo daggal diggante gaar bu yëmbal ak gaar bu kër mbay fàll journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa APIX ñoom nag porte nañu plainte nee nañu mbir mi mbirum criminel la yéen a sunu làmba ñu xëy fekk fa Malick Thiandoum muy wax ci combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Sa Thiès ak rëg-rëg Malick Thiandoum nee na combat bi nañu si def ndànk ndax Sa Thiès dafa bëgg a freiner rëg-rëg